yalla yàlla joxoon yonent bi ne ko Bi, maak yow bi yow ñen ñenn téré ak digé yi lolu lañ taxaré ci aduna yalla téré na leen li yalla dik na leen li té ñi ku mu téré bo bayiwul mbiri fi nga muju ku mu dik boko défé fi nga muju lolu moy liñ taxaré ci aduna bi <coughs> man ak ñen moy xam-xamu sufiyanke mu ne ko bii maag yow bii maag yow kenn ku fëgg dënam àgg ci yàlla léegoo yàlla kese la du la wéttali jinne du la wéttali rab du la wéttali yàlla rek la te lu mu la wax doy na te loo ko wax doy na loolu ku àggul ci yàlla moom boo ko bàyyi du la fa yóbbu moo tax boobu bu fekkee ne dëgg la moo tax bàyyi mu ne fi ma yóbbu jàmm bi mooy xaar anta waram boobu bàyyi sax du dem bu la yóbbu ba ci yonent bi yonent bi du dem waaw moom la ibnu farid doon wax man anilna ma al ahbabi ru'yataka allati ilayhi qulubul dégg nga aarifuna tusaariku qulubul awliya tusaariku mu ne anilna mu ne may ñu jox ñu ma al ahbab bi mag sama taalibe loolu sax alaaji Malik am na fu mu ko xattama woo jabaxalu zan boobu alaaji Malik bi woy loolu ma sax di tudd ay tur mu mel dafa am keneen ko ma nañu wax ci li ñuy wax rek jaam yàlla yi àggoon nañ fi ibnul farid ñeent fukki at la tëju bugg àgg ci yàlla gedd nit ñi parce que jamono boobu ku bëggoon àgg ci yàlla lii bàyyi di séddale ku ko bëggoon am ci jamono boobu da ñëw sa jabar bu mënee ànd ak yow ànd ak yow ku ko mënul mu tas ñépp xam nañ ne jabaru Cheikh Tidiane bi Cheikh Tidiane jeexalee téere yi mu xam ne moom sëy ak yor jabar rek bañ ko ñenke yooyu mënu kaa boole li muy wut ci yàlla daa fa sa jabar yéen gis nga tollu ngeen si même boo leen ci tombal tombe tolloo da ngeen daje dégg nga dégg nga kii wax ne dégg nga dégg nga tawaytu wa sahal tariqa ila al xaq li kulli muridin yéen foog ngeen jamono moo tax yëgoo leen li xew kooku ngeen jamono da ngeen tombeel ki wax ne wa aqwi liman qad habbani kulla mahmanin ila hadratil ulya wala kuntu ramisan yéen kooku ngeen tombe moo tax mënoo leen gëm ne moo tax ku dëpp sa kër ne àgg nga fii ci maqaama góor yàlla sa papa ne la dug du dëgg ñaataat ñu ngi bañ doonee tiijaan ba léegi ñaata sëriñ laa dugg lu ne def naa ko ci sama yoon ñaata xalwa laa dugg yow toppal fële ay caaxaan lañ leen wax ay jinne lañ leen di won parce que da ngeen ànd ak waaye ji nga xamante ne daf na yàlla jaagi nii quand il veut outil moo tax kenn ibnul faari ñeent fukki at la tarbiya tarbiya ñeent fukki bés mu ne yàlla anil na bugg naa àgg ci yàlla ma al ahbaab yi maag samay taalibe bugg nañu ru'yataka allati sa gis ji nga xamante ne dégg nga xolu jàmm yàlla yi ñu ngi koy gis te sa xol bii mooy gis de sa bët yi gisul de sa nopp yi dénkul sa xol bi mooy dénk ndax nit di xool de loin muy wax ak nit loo déggul sa xol bi wax la li ñu ñoom ñoom. loolu amul. te ka leer ah? gumba dafay gis waxuma la gumba sori na tëjal néeg sa néeg yaa ko xam courant bi yëpp ku kenn gisul nga jóg koo yónni ku yow mu daaneel kaas yow nga jóg dugg ci biir lëndëm bi gëmm dox ba téye li ngay téye génn moom ba ci bitti hmm. loola ko may parce que xol bi bi bët yi gëmmee xol bi moo ko di gis moo tax bàyyi di lay wax naan leer ñeent la hmm. leeru adduna bi ak leeru làmp ak leer bi bët bi di gis ak leer bi xol bi di gis hmm. lenn ku ci nekk leer mu nekkoon yàlla may ñu gis giñ lay gis ñiñ dégg na walu yàlla yi dañ lay gis may ma mag samay taalibe yi àndal رؤيتك التي رؤ بس كنا قبل تنا مولم ولي الله يوم لني ذكنت نيم فوكي أب مي تربية دي جل شيء لون تبي دي نعمي نعمي تفهم جل تربية من أرومو وإن طال المدى منك نظرة بقنا ده دم تربية بيان كل شيء يقول ما تك بقنا أرومو وإن طال المدى منك نظرة فكم من دماء دون ما ما يتلقي ñaata dereta tuuru ci bëgg agg ci yow maanaam ñaata nit ñoo sóobu ci yoonu bëgg a am fattu àgg ci yàlla seen bakkan des ci àgg seen say tas seen say tas seen bakkan des ci àll seeni alal des ci àll bi ngeen foog ne bàyyi faal yi yëpp lan la ñu ut ci sëriñ si ngeen foog ne sufiyanke yëpp lan la ñu ut ci seen sëriñ si ngeen foog ne taalibe yi yëpp ngeen gis ci Sénégal ak réew mi ku am sëriñ ngeen foog ne lan lañ wut ci seen sëriñ seen alal yi ñuy dépensé jëndal sëriñ bi oto jëndal ko kër lu sëriñ bi ne un rek ci saa suñu réalisé nga foog ne lan lañ bëgg ru'yataka allati ilayha qulubul awliya tusaare lii rek lañ bëgg ñu xam ko am ñu ñàkk am mu ne aro ñu bëgg lañ condition boo ma tegal man Ibnu Farid bëgg naa samay taalibe yi nangu nañ ñu yànd ak man wa in taalal mada min ka nazratan donte tarbiya bi yàgg na nañu am ven benn bët rek ñu xippi ko gis rek suñu bët yi tëjuwaat nañ xippi rek gis xadara yàlla bi rek bu yeboo ñu gumbawaat loolu la loolu la euh, euh, euh, Eddie Murphy xaw ma moom la woon wala kii gumba bi doon rap bi doon woy Amérique ah wala yéen ay booy ngeen woon jamono boobu mooy gumba bi woyoon we are we are the world we are the world comme temps ay booy ngeen nekk ngeen fàtte kon ñun ay paa lañu mooy kumba bi waxoon ne milliardam yi am yëpp dégg nga médecin yi si àdduna bi yëpp képp ku ko may mu xef nii gis jabaram ak doomam benn bés nga tëjaat bëtam mu jox la ñu seddoo yow li ma am loolu la góor yàlla yi doon wax ku ma may benn yoon ma xëppi rek gis xadara yàlla bi bu ma waat sax bëgg naa wa in taalal mada minka nazaratan fa kam min dima in duna marmayin tullati mu ne ñaata dereta tuuru ñaata coono ñaata nit a déserté wu gerte ba génn àdduna nday jàppale ci suñu xadara yàlla ñun xoolee nañu ko bàyyi woon quand tu veux où tu vas ngay lekk naan nekk ak sa jabar nekk ak sa jëkkër ubbi sa place di tëj di sangu di tëdd di nelaw di dawal sa oto bàyyi dab la fa ne qad qaruba alxabibu wal mazar soppe baa ngi nii te jege na disponible na possibilité yaa ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay naw ngay buur ngay baadoon nga jub ba jubati bàyyi ne boo dëngee ba mel ni garabu yoo sax man ma yóbbu la ci xataay te fii ngay toll dégg sëriñ yi ñun ñu jup lañuy andal bo boo bu and ak ku jup bu doon serigne bo bëggee doon serigne mom bu and ak ku am bu and ak ku jup ndax fekk ku am ay milliards ba pare nga ne diw ma koy ñaanal waaw ki ki ni nga xateeti waa waaji jour bi na la tudd Sadio Mané ma koy ñaanal mu yor ay milliards ba pare Macky Sall maa koy ñaanal mu falu ba pare pare fay Sall maay sëriñam mu falu ba pare yor ay milliards loo koy ñaanal da ngay ñëw ci man mi nga xamante ne maa ngi dugg ndekki subaaw ma waaw aca nga sóobu nga jox ma say saafara jox ko xam waaye fekk milliardaire bu toog nga ne yaay oh. ba yomb ah. fekk taalibe baay bu am fatt ba pare nga ne ko maay sëriñam mm-hmm. lu deseeti xorma fay fi yàlla bi rek la waaye fi bi bàyyi pare toppante amatul lol toppante amatul moo tax bàyyi ñes mu ne dëkk dëkk toppante amatul suñu biir bu dut woon charte yi tariqa bi indi ak diine yi nit kun duñ dajee waaye war nañoo dajewaat julli julli moro, ndax li ci julli mbooloo war nañoo daje wasifa ndax li ci daje wasifa ndax li ci daje xadara rendez-vous Cheikh Tidiane ne wasifa boo leen xamoon li doon ci doomi adamay yi boo leen bay rap da ngeen dem jëli ci da ngeen dem tok ndax fekke wasifa nit hadara nga xamantene yàlla joxu ci julit bi cheikh Tidiane joxul Tidiane ram bu ëpp tàkkusaanu àjjuma amul Cheikh ibrahim Niass nee bu dul li lii ku am fu tarbiya ku pare tarbiya soxla ko man motax ku fekk taalibe bu am fatu ba pare nga ñëw ne ko yaay serignam kooku xam nga ne orma rek dafa dugg waaye dëgg-dëgg ku pare ci yàlla amatul seen waaye nag boo dajee Mawlana Cheikh Ibrahima Niass foog nga jox ko sa bopp ndax hal absarat aynaaka misliya saa'iran suluki wa jazbi wal uluki hal absarat aynaaka axlaa maishatan min al abdi fa huwa alhamdulillahi boobu mooy alhamdulillah moo tax bàyyi mu ne Oustaz Ibrahima Diop ku ma am ku ma gis ku dajeeg man na wax alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. moo tax Ibnul Farid waxoon ne aru mu bëgg nañ àgg ci yàlla wa in taalal madamin ka nasrata donte tarbiya bi yàgg na condition bu ñu teg bëgg nañ waaye ñu si ñëw kaay kantima komtima boo demee euh, euh, euh, xam yàlla jar na ko boo demee fële na le suñu mbokk murid ci la ñuy wax tuubaa li abdin muridin sadiqin lahu bi hubbin xidmatin aw li hadiyatin xaw ma noonu lañ ko waxee mu ne Touba gi fi ne képp ku soxla lu ne Serigne Touba li muy joxe mu ne condition baa ngi li am dil murid yi sadiqin faw nga dëgg faw nga bëgg faw nga joxe àll soo dëggoo takk sa ndigg ànd ak sëriñ bi bëggatoo dara amaan na nga jot nga bëgg joxe sa bakkan wala mënoo liggéey amoo temps xibmal sëriñ bi hadiyati tibbal sa alal indi yàlla jar na lu ëpp loolu alaaji Maalik wax daf ne li ma ne ku ci ne ëllëg lu ma am nga am ñu ne ah ne maandu la waaye Baye Niass daf ne un un Baye Niass de quand tu veux où tu veux quand tu yàlla jaa ngi nii loo ko bëggee foo ko bëggee ak naka nga ko bëggee kañ nga ko bëgg Baye ne dama jox ngay buur ngay baadoola nga jub nga jubati dégg nga nga jub nga jubati ngay buur ngay baadoola nga xam nga ñàkk xam waaw ak lii li man xat xaba ne bàyyi nee ne waxuma la dara sax obstacle yeeg yi ci yoon bi sax dama la koy lemal doo ko gis moo tax bu ñu la nettalee yoonu góor yàlla yi da nga naan bàyyi da laa jiitu. tere nii nga jaar. ñu ne ko waaye lu tax mu ne ñi jiitu ñi jiitu sax ñi jiitu ñi jiitu xool ma ak ñoom ñoom dañ doon yor. ñii di raam ñii di moytu parce que tere mii ne la. dégg nga. man man nan laa jox. fa jaw bi fa yaa fi fi mu aari fi lan tur ne bëri rek romb. waaw yoon mi dara tënku. fa jaw bi fa yaa fi fi mu ci gaal yi. lam turam mosoo kaa gis. xat xasural axtaabu xut bu yi jiitu. gàttañ lu nan ci defee ko ni ma koy def. wala loolu. moo tax nag dégg nga kuñ dimbali dana yàpp ko mën. ñun dañ ñoo dimbali. ñun gisuñ dara. gisuñ dara. Eh! lenn rek la bàyyi soxla. mooy boo leen dama leen takku yóbbu leen. léegi xippi leen ma war leen yoon bi ma leen. jaay boo leen bëggee demaat demaatal seen bopp. Hmm. loolu mooy sëy. waaw. ndax bi ñu lay yóbbu ci yàlla dañ laa lax rek sànni la nga fëgg sa dënn.

loo orang bi ngay dem orang ji nga waroon mu nekk mooy Cheikh Tidiane. waaw. waaw lan la ban nga benn bu la bëgg kan la du eh, eh, eh. yes. jëmm ji nga war mu la. kan la. yes. kan moo la ubbil buntu bi. nga duggee koo fa fekk. yàlla déedéet. sa bopp. doomi aadama yëpp ci àdduna bi daje nañ ni nit boppam rek la soxla. yow sa jabar nga sax. mu xam nga ci góor ñi moom dañoo mën a meew léegoo leen waxuma la leen si amoon ah dégg nga takkee jabar wala balaa ñu laa takk dinañ la wax lu ne yaa ma gënal gis nga man loo ma jaralul sama yaay sax koo bëggee yow xoolal fekk xoolal boppam la bëgg bëggu la rek bëggu la rek nit la soxla. même Macky Sall bi li muy wax yëpp confort fofam la soxla paix intérieur am la soxla mo xamné bu sénégalais amé jamm mo am jamm comme lu dépenser jamm sénégalais bopam la xamana nga dégg Macky Sall xamna né ne jàmmam jamm Sénégalais kon lépp lu mu créer ci ay milliards stabilité pour Sénégalais am jamm du pour jamm Sénégalais parce que jàmmam la ci am sa kër gi nga dugg lal bu rafet bi nga jëndé 2 millions bëggoo commerçant bi dimbali woo ko pour mu jaay. sa bopp nga soxla. sa bopp nga soxla. sa bopp nga soxla lan bi sa bopp nga gi lu muy rafet rafet dimbali woo soxla si dimbali woo liggéeykatu aluminium yi dimbali woo peinture kat yi pour ñu am liggéey déedéet kër gi bi ñu ko tabaxee deux cent millions un milliard sa bopp nga soxla non non dimbali woo kenn tamit jëndaloo ko sax sa jabar même boo nee sa njaboot nga ko jëndal. léegi après loo ci soxla ñu am stabilité stabilité boobu moo lay may stabilité kon stabilité mm-hmm. euh, lépp ci yow la euh, lay dem. moo tax koo mën a jox loxo rek. ba Cheikh nga jox loxo mu delloo la sa bopp. waaw waaw bàyyi rek nga jox loxo mu delloo la sa bopp ku dul bàyyi mu ngi jëm ci yow daal. moo tax efficacité bi Cheikh Ibrahima Niass am pour def li def ci àdduna bi mooy ñàkk a lijjanti ku ma lu mu am xam ne dégg li ma c'est vrai bàyyi xam-xam le déedéet déedéet li mu def ci doomi aadama xol bi la ñëpp yéemu nañ ci moom waaye dañ ne gaaw gi gaaw ci àdduna bi ak def gi muy def nit tasawuf ba ci xolam moo tax ci xolam bi la ci xolam bi moo tax nga gis ne doomi aadama yi ci boppam amul benn doomi aadama taxaw naa dama laa bëgg sa jëkkër ji loo ko bëgg bëgg bëgg sa bopp mm-hmm. dama leen di wax seetlu war leen ko rek kenn bëggul kenn ku ne sa bopp nga bëgg waa léegi léegi nag ngay wër sa bopp di wër ci sa bopp di wër sa bopp di wër sa bopp fan laay amee sama bopp nga jàpp ci ndaw ci am su fekkoon ne ci jigéen bi la doo leen tas su fekkoon ne ci jëkkër la doo tas bu fekkee kër doo tuxu hmm. bu fekkee tukki la doo delsi hmm. bu fekkee alal ji la doo ko maye hmm. bu fekkee mbubb mi la doo ko suppi kon daa ci eh. man nit ki giiru dund jotul boppam day wër boppam ci lépp bi mu amee bàyyi la jot boppam moo tax kooku rek a baax ci ma kan moo ma gën a yéwén ci xeet amul amul ma ëpp yërmande tamit ci xeet amul moo tax bàyyi mu ne ku la woon boppam war na la ku la woon jaamu yàlla sonal na la waaye ku la boole yàlla noppal naa la parce que boole na la ak sa bopp moo tax kenn du bàyyi yes kenn du bàyyi moo tax mu ne in kaana man jillet waa ji mu ne ñeent fukki at la tarbiya pour àgg fii waaye bi mu àggee ci yàlla léegi dafa toog ba dernière année bi mu gént gis ñu woon ko këram àjjana nit ñi loolu la ñuy wut de mm-hmm. mu ne in kaana manzilati fil hubbi indakum maa qad ra'aytu lahu faqad dayyaqtu ayaati mu ne Ibnul Farid mu ne ca man li ma jaamu yàlla yëpp yow yàlla yonentu man li ma sonn jël sama life ñeent fukki at dépensé pour ci bugg a ci ci bugg leen a jot nga may woon kër si àjjana kon sama dund yëpp perte na man jaamu woomaam yàlla pour am àjjana te fii kuñ fi jaamoon walla sa kër àjjana pare nga moo tax bàyyi mu ne damaa toog ci jamono yu njëkk yi di laaj man lan laa war a ñaan yàlla waaye ñes leen a may ñaan di ñaan di ñaan lu ma ñaan ba ci àgg ma gis ne doyul mu dem ba ci yàgg ma ne ah yërmande yàlla ma dem ba ci yàgg xam ne yërmande yàlla sax bëggatu ko xoolal waxtu jooju ma gis ne yërmande yàlla sax doyul nee ci laa doog xam ne dégg am yàlla gën yëpp ma ne yàlla yàlla nga ma may yàlla waxi doom la mu ne damaa gis ne yërmande yàlla sax day jeex lépp ma ñaan yàlla yàlla ma yàlla may yàlla te bu yàlla may yàlla may na la sa bopp moo tax lii la góor yàlla yi doon ut ci ko utee ne moo tax koo leen gis muy waxtaan day waxtaan rek waaye àgg gi moom ci kenn la al yawma baabul fatxi baabun waaxid al ma tey buntu àgg ci lii benn buntu rek la muy buntu ak bàyyi waaye nag mutafarriun buntu boobu nag doon ubbi buntu yu bëri mooy muqaddam ñoom rek ñoo lay gindi nga àgg ci dëgg te du am benn coon loolu la maalam tijaan ko moo tax ibnul farid lii la waxoon in kaana manzilati fil hubbi indakumu dégg nga voilà daf ne bu fekkee ne sama ñeent fukki at yi ma jël yëpp dépensé ko ci bëgg la yow yàlla yonent bi jël sama laaj yëpp jox leen ko ngeen ma bu fekkee ne lii ngeen ma fay kon sama dund niil la ndax àjjana ngeen may woon damaa soxla àjjana ma mu ne mu ne kon man sama dund bi nii mu ne aminatun zafarat bi haa ruuxi zamana ma jël sama ruux kii dépensé ko ñeent fukki at fal yow mu ahsabuha atqaaka ahlaani non lii yàlla bu dë gént yàlla bu mu doon dëkk gént gi daal yàlla bu mu doon dëkk ndax gént mooy yàlla bu mu doon dëkk xoolal lii la góor yàlla yi doon ut yow Baye Niass jox la ko ngay ñàkk fay di ut lekk Baye ko ngay bëgg keneen la ko ngay topp keneen Baye Niass jox la ko ngay xëccu di ñee keneen Baye Niass jox la ko ngay ngay keneen yow xamoo xamoo li la Baye jox waaw li la Baye jox lii boo ko xamoon di nga bëgg ku dul bàyyi. Hmm. lii boo ko xamoon di nga ñee di nga fan di nga seetlu di nga xool ku dul bàyyi. fan la lii la la fi nit def ba pare bàyyi wàcce waat la ba nga toog mu wax la kaddu goo xamante ne kaddu gënu kaa rëy ba pare jëf ji gën a rëy ci kaw suuf mu mu dimbali la nga mën ko mooy nangul yàlla ci képp feeñuwaay hmm. yow ngay toog di fan keneen ñoom diw ak ñoom diw ak ñoom diw ñoom diw ci luñ ne. loo newut ñoom diw luñ am loo amul ñoom diw xam loo xamul dara gars yi moo tax man bu ma gisee taalibe Baay di am star baa muy fan ku dul Alaaji Ibrahima Niass man da may jaaxal ak koo mën a doon nag moo xam borom alal la moo tax taalibe yi dañoo bëri na fekk léegi rawatina bu xadal ku ci jóg di naan jéem a cohabitation nañu yaatal yow loo yaatal yow yaatal gi yow ña koy def amuñ ci dara yow bi nga yëgee ci Baay nga jëriñu nañ nangul ñépp luñ am ñeneen ko nangul luñ am yow bi nga nangu nee bàyyi fi nga am li nga bëgg boo ci delloo ñàkk li nga am ah, te lii lii la góor yàlla yi doon mu ne wa inni waaw aminatun zafarat bi haaroon ay zamanan ndeysaan ki ma óolu muy yàlla ak yonant ma dépensé sama bi yëpp ci ñoom bugg a am fattu ak wusuul ni ko Cheikh Tidiane doon utee ngeen may woon kër àjjana kon man sama dund gi sama dund gi niil na wala gént gi yàlla bu mu doon yi sama dund gi na bu fekkee ne gént gi dëgg la lii lay tollool mooy li baay di wax naan man lam yanal maarifata rahman ahmaaruhu daat adal asman bàyyi bis mu ne képp kuy dund giir dund te xamoo yàlla sa dund gi niil na moom la moom la Ibnul Farid wax bu fekkee ne sama gént gi ak am àjjana lañ ma wax kon sama dund gi néew kay bàyyi lii la waxoon dégg nga wax yi nag moom nga dégg sama kat yi di sama laa la ilaha illa la ilaha illa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 dégg nga denc ko jaww ji doom yaa n i Allah. xamante ne dégg nga maa ngi ko denc sama biir ay jamono yu jamono dëkkandoo xamu ko ci man xarit xamu ko ci man yaay xamu ko ci man papa xamu ko ci man jabar xamu ko ci man kenn xamu ko ci man mm. ba yàlla ne ma génneel waaye balaa mu ko daan génne li ne ci lu dënd yëpp bàyyi ko dencoon ci dënnam su xaal bi tàngee te war ko wax day génn sàmbaaw sàmbaaw sàmbaaw sàmbaaw sànni ko ci jaww sàmmaaw sàmmaaw sàmmaaw sàmmaaw ba yëf yi giif mu denc waat ñëw ko. ayaa awalan wa anta zahiro wa yaa batinan bihi kalla naziro ba awta bi qurbin ba awta bi qurbin dangaa sori ci jege bi zahale nga làkku ci fang wa yaa jaban min ndaw kéemtaan eh. Eh. làmb loo xamante ne mu ngi ne dang dang jàkkaarloo mu ne tur yëpp ak melo yëpp mu ne tur yi ak melo yi ak nature bi benn la moom mooy dëgg dëgg jëm yàlla ci kon nag yàlla mu ne dang la ilaha illallah la ilaha illallah لو تمت كوريا لموقع شبلي موني تامل موني مفيان تامل مفيان تامل سيبلول تامل باي الخل تامل خنا جيسو سطور الكائن ني ادو نبي دي دمني vers nous vers vous vers moi vers toi فإنها موني ديرول ما من الملل الاعلى لب في حضر يلا بلا جوك اليك رسائل كن كو تشني مساج يا كو موم نكو ربي كو لقد قلت فيها لقد قلت فيها لا تعمد قدرها على كل شيء ما manam bo ci amé méfiance manam bo ci amé sétantal manam bo ci xousé xous du xousu jëm manam na ci sa xel mi xous na ci sa yëg-yëg xuus mayal sa nopp mu xuus si li ngay dégg mayal sa bët mu xuus si li muy xool mayal sa loxo mu xuus si li muy làmb mayal sa tànk mu xuus si law ta amal ta a boo ci bàyyee xel da nga xam ne dara mu fi dafa doon wax Cheikh Tidiane ñëwagul lan lañ doon wax mooy àggoon nañ ci nii te mënuñ transféré données yi ci keneen parce que bu seen ndigal moomuñu ko saalum saalum fi ñëwee nag. waaw si la yëf yi tasaaroo nag. dëgg yi ba tuuti ba comme. yes yes waaye yaa doxal la dem dàq keefeer yaa surumutoo. dem gur gu mag geefal bay barama. bay barama sànni gànnaar bee mu yóbbu Fuuta. lu baax mu gàdde Saalum bay barama. yàlla demoon xadaratul xudsi dootuñ fàtte yàlla. suñu gëstoo dana yónneen si ata min al mala il ala moo tax bés bu nekk mën naa leen ku nekk jàmm koo jox sa bopp ku dul Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mu liira la li ngay gis mu dugal la ci mm. yàgg sa bopp wala yàgg say morom wala yàgg sa morom bu ko nangu li ngay dégg koo bàyyiwul ku dul bàyyi mu firi la li ngay dégg conflit la lay indi xam nga dégg ngeen li may wax te amal sutural kainaati fa innaha min al mala il ala ilayka moo tax fii lan moo fi am fii tout est normal soo laajee bàyyi li ngay yëg li may dégg li may gis li may nokk li may lii lan la bàyyi def na leen tout est normal loolu mooy fii jannatul xuldi bi laa bokk taati tout est normal la la bàyyi di wax benn bàyyi li Cheikh Tidiane wax ne ku ma laajoon junne junne la benn réponse la def Cheikh Ibrahima Niass boo ko laajoon junne junne question benn réponse la def tout est normal la lay wax te amal sutural kainaati fa innaha min al malai ala ilayka masal wala boo ci xuusee nag nga bàyyi ci xel fan ngay xamee maa alal laa yàlla bindul ne mooy dana am fi lu dul yàlla. léegi nag lii lañ deful ñun moo indi problème yi ñu am yëpp moo tax réew mi amul problème adduna démb ak adduna ëllëg ak adduna tey yëpp benn bi muy fekkee lay fekk lam doon nit lay nit weer wu génnee fa muy sooyee fa muy lam doon nit lay nit bis yi ci xew mardi li ci xew ci xew mercredi amul benn mardi bu dara xew te dara xew ko mardi boo yeewu dund ak dee fa am neex naqari am ak ñàkk xool ak gis xam ak ñàkk xam benn mardi du fi amat ci àdduna bi indi lu bees benn lundi du amat ci àdduna bi indi bees benn mercredi du amat ci àdduna bi indi bees benn loolu bés yi ci àdduna bi ñetti bés la woon jeex bés bi yàlla amalee turam wi ak bés bi amalee merom wi ak bés bi mu amalee jëmmam bi àdduna adduna bi yëpp ñetti góor a fi am muy bàyyi bi ak Cheikh Tidiane ñetti mbir a fi am démb ak tey ak ëllëg jeex na leneen amatu fi ñett rek a am ñeenteel bi mooy yow mi koy dund ah. leneen am man nag tey leen Cheikh Kourous tey leen bu leen di ñëw parce que firil leen leen kaw na bi mooy lan déroulement bi wax nañ la ko waroo wuteeg ñu ci des hmm. waaw moo tax sàmmaaw yi ak woy Ibou Diouf yi hmm. man moom moo mën a dugg ndax laay laay la laa xas naa ci dugg ba pare laaj jeexi dootul sama problème woy Ibou Diouf yi ci boppam sàmmaaw yi déroulement bi mu ngi noonu moo tax nga dégg waa ji wax naa law daxal ci jinaana yowmal qiyaama la in hadafat su ma duggee àjjana ëllëg day maam su ma duggee safara day fay ñu ne ko fooy dugg mu ne fii ma akate seen xel إلا مالك كنن كده رحنا نفهم نفسه ذلك هي المراد سبق بي سجم جي موي لي غي وول سو ما خامي ريك دوجتي سفابو لا سفالة من زمانك واحد فهو المراد سجمنا جوج لا يلعب مون بو ديكري بو لير لير سجم جي موي كوتري مون لا كو لير لير كي نياتات مون كو وخ شيخ تياني حين ذكرتك لا إني نسيتك لم حتى أي سر ما في ذكري كنت بلا وجه أموت من الهوى لما نكون في أمو ما يدي تبقي خل الجنيات أطلع جروا لقد قد الدهر قد قبل أن يحصل في ذلك يا رب يب يب ما يب يلب لي بايس ما تبايس وما كنت تسمعون هذا كذا عارف kon la lan moo des lu dul ñu focus ci Saalum Saalum dañ focus si Mawlana Cheikh Ibrahima Niass li fi xew yëpp moo fi doon xew rek doogal ñu ñaan doogal ñu ñaan let's focus on Baye mm-hmm. sanaa doo célibataire daal di jëwoo reer yàq jëwoo reer tegi jëwoo reer kon léegoo léeg da ngeen laaj kenn ku nekk lu ma bàyyi def ni xool ci seen bët yi bàyyi leen bàyyi leeral leen li ngeen gis mooy lan wala ko seytaane leeral rek wàcce la yoon xaw ne dégg li ma wax léegi kon yàlla yàlla defal taw. yàlla yàlla eetal sunu mag. yàlla ñu yàlla bàyyi ak bàyyi. rabbi. ci ñaar lay jëriñee fii rek laa njëriñee doon naa la woon bëggante bu jeex na wax ci jeex na wax ci jeex na yi ñuy wax yëpp ay lii ak laaj bu dara bàyyi ñaar rek ay njëriñu ci moom muy bëgg ak dëgg bàyyi bëggam dëgg kooku moo lay may sax yow bëggam dëgg kooku moo lay may bëgg ak dëgg moo lay may taxaw lépp luy utaat ci yoonu muy sax bi nga xamante mooy aaxirul madar bëgg ak dëggoo la may leer yi fii coow fii yëpp a yi dañuy waxtaan rek waaye li fi xew ñun ñëpp xam nañ ko te jot nañ ko jeex na. waaw waaw. li des mooy dëkk ak baay nekk ak baay wax fii a fekk. fii baay rek moom la amee moom la moom lay doon. teel leen ko gëm rek ay wuraafaat la ay waxtaan rek la ak ay xulli ba teg jaarante affaire. on li bay. parce que bakkan a fi nekk foo fekk ëppalante ak gënante ak ak ak ak waxante ak yàqante bakkan la yàlla ñu yàlla génne ci bakkan allahumma ya rab yàlla génne yóbbu ñu ci bàyyi mooy xol ñun ñoo nekk bakkan ku nekk mu génneel ci bakkan bi yóbbu la ci sa xol nga war di yéeg ba sa siru doxaat ko ci sa xol bi yéeg ko ci sa siru doxaat ko ci sa xol bi bakkan bu ci dellu ndax yàlla ba mu defaree àdduna la ci gëj yàlla wax ci alxuraan nee na ba ma defaree àdduna laa ko gëj a xool you have seen it bien entendu dañ yéeg ba ci xol ñu taxaw delluwaat yéeg ba ci xol ñu taxaw buñ dellusiwaat mukk ci naf سيدنا محمد الفاتح لما ولقى الخاتم لما سلك لك الهادي الى صراطك المستقيم وعلى ليق المقدار العظيم ربك رب العزة عما يصفون Khadar Ali Hamd, chez Aziz Ndiaye, au service de Bagnès pour sauver la jeunesse. Khadar Ali Hamd, chez Aziz Ndiaye, au service de Bagnès pour sauver la jeunesse. secrétaire bi bi de Barhama. Barham TV. Yes.